téléspectateurs yu TV3 Channel dalee leen jàmm seen premier numéro euh, TV3 Sport. ci ñu tàmbalee tàmbaleeg fi nga xam rek moom moo jëm foofu ca zone 6 euh, bu Sibikotaan jëm si li nga xam rek moom mooy euh, nawetaan euh, édition 2022 dañ koy tàmbaleeg fi nga xam rek moom mooy poule A bi situation bi nii la tëddee si li xam rek moom mooy poule A bi si troisième journée bi ñu fa am fi nga xam ne mooy ASC Sopi daal di jongante ñetti mars si biir mu am daal di am trois points. beneen bi ki nga xam rek moom mooy RCS mu gën nga xam si Escale si ñetti jongante mu daal di am li nga xam rek moom mooy 6 euh, points euh, ki si tegu rek muy ASC Rail si biir loolu si troisième journée bi ñaari jongante rek la si jonganteegu wan si biir loolu am na euh, ñaari poñ ki si tegu rek moom mooy ay ASC jamono jamono moom si troisième journée bi ñaari jongante rek la si daal di jongante wante loolu benn point rek la si daal di am. qui euh, qui ki ñuy pour rek si euh, ay euh, ASC Kanigi euh, si ñaari jongante la daal di jongante si euh, troisième journée bi wante moom amu ci benn point mu mel ni moom mujjee si poule boobu dañuy dessin foofu ca zone 6 bu Sébikotane toujours jëm si li nga xam rek moom mooy poule B bi si troisième journée bi classement bi nii la tëddee FC Jàmbaar ñetti jongante la daal di jongante mu daal di am juróomi point ki nga xam rek moom ay ASC Nder sax si ñetti euh, jongante euh, juróomi poñ rek la si daal di euh, am ba tey foofu ca zone 6 bu Sébikotane jëm si troisième journée poule B toujours ñu am foofu xam mooy ASC Darou Salam ñetti jongante mu daal di am li nga xam mooy ñetti point kese la si daal di am ki mujje si poule B boobu jëm si troisième journée bi toujours. mu yeba inda yeba inda ñetti jongante la daal di jongante wante ñaari point rek la si daal di jëlee ñu xuus ba tey si li nga moom mooy li nga moom mooy poule C bi si troisième journée bi ki nga xam ne moo si jiitu muy ASC Coxo ASC Coxo ñu bëri xam ko si ñetti jongante mu daal di si am 9 points mu mel ni moom moo jiitagum ki ci tegu di ASC Sébisu ñetti jongante. la daal di euh, jongante mu ñetti match am fa euh, ñeenti euh, point

fi ñuy jeexalee rek mooy euh, si euh, foofu foofu nga xam ne moom mooy euh, zone 6 bu Sébikotane jëm si li nga xam mooy poule D bi poule D bi nag ñoom fu mu toll nii ñoom ñoo ngi si deuxième journée ndax seen troisième journée bi dañ ko dañ ko reporté woon wante fu ñu toll nii si deuxième journée bi Saint-Martin mu ngi si ñaari jongante mu ngi si am ñeenti point ki si tegu di ay ASC Gandoul si ñaari jongante mu am si trois points. ay euh, ASC yaakaar moom moo ci tegu si ñaari jongante mu daal di si am li nga xam moom mooy euh, ñetti point ki mujj si poul D boobu si deuxième journée la ñu toll ñoom waaw euh, poul D bi ay ASC Yeba Inda Yeba Inda si ñaari ñaari jongante. benn point kese la si daal di am loolu la ñuy jëlee woon fi nga xam rek moom euh, zone 6 bu Sébikotane mu mel ni euh, poul yi poul yi ku si nekk rek yaa ngi euh, jéem jéem pour mën a jiitu sa morom. wante nag ñi nga xam ne mu waa poule D bi ñoom kese ñoo si amagum deux journées lu si poule A poul B poule C bi yëpp troisième journée lañ tolloogum ni kon poul D bi rek moo si amagum poule moo si amagum moo si amagum li nga xam rek moom mooy deux journées. gannaaw bu ñu jógee euh, zone 6 bu Sébikotane dañuy xuus dem foofu xam rek mooy euh, zone bu Diamniadio euh, wax leen situation li nga xam mooy jëm si ñaari poule yi muy poule A bi ak poule C bi jëm seen deuxième zone bi foofu si premier si li nga xam mooy poul A bi ñu am fi nga xam mooy Jokko Jokko daal di am ñaari match am 4 points Darou moo si tegu aussi am ñaari match. ci deuxième journée bi am euh, li nga xam mooy 4 euh, points ki ci tegu moom mooy euh, Losa. Losa ñaari match la def waan fi mu trois points la ci am Cité moo ci mujjee ñaari match la def ñaari défaite si biir loolu rek li ñu desandi foofu xam rek mooy zone neuf bu Diamniadio wax si li nga xam mooy deuxième journée poule poule C bi poule C bi nag ku nekk xam na ni Dental dafa exempté woon ndax premier mars am daf ko gagné woon ba fu mu toll nii trois points yi la am ki ci tegu moom mooy dandale ñoon dandale ñaari match la def. daal di am euh, ñaar daal di am euh, ñaari point ndax ñaari match nul la am euh, ak ki nga xam rek moom mooy jamono safa ñaari match la def am foofu nga xam ne mooy ñaari point ak ki nga xam rek moom mooy jàppo taxaw jàppo taxaw fu mu doon ni benn poñ rek la am ndax xoolee premier match am dañ dañ ko daal di gagné suñ ko booleeg ni day am benn point la am ndax dafa nul si match am bu mujj bi kii ki xam rek moom mooy lañ mujjee rek moom mooy màggadaan màggadaan bi nga xam ne dafa daal di Euh, euh, am fu mu la benn point la amagum ndax premier euh, ndax soo xoolee première journée bi de première journée dafa e, exempté woon kon loolu mooy nekk situation li nga xam mooy poule C bi wante gannaaw match bi nga xam rek moom moo amoon diggante Magadan ak ñi nga xam rek moo waa Dendene Niol dañuy ànd ak waa Rési ñu dégtal ñu kaddu yi nga xam moo ruusee si ñaari njiit yi mu ñaari président yi. waa sant yàlla comme ni ñu gisee rek. ñaari match yëpp c'était pas des matchs faciles parce que le premier match aussi c'était diamono Safa xam ngeen équipe bi aussi euh, ñu ñëw mu nek 0-0 Té aussi ñu ñëw jusqu'à présent dal les attaquants ñom ñoo des li ma gis ci équipe bi dal tout est ok mais li dess dal moy but bi dal moom moo des waaw lool dal la gis ne moom moo des te peut-être euh, comme que xalé ñu ngi sogo nek ci course bi té jusqu'à présent guñu dessé nañ suñu yenen ñaari sorti yaakaarna coach yi nañ joyanti loolu ñu gagnons liggéey devant les buts quoi incha allah. non ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla parce que aussi trois ans yi passé comme nous ma la ko waxee méttiwoon na trop mais nous fi nekkoon 2016 2017 ñoom yëpp ñëwaat nañ ñu ngi si équipe bi. donc euh, tey ñëw nañ suñ premier match la am une match nul bien vrai que victoire lañ bëggoon ndax kuy ñëw tamit victoire nga bëgg mais yalla amana nul bin la ñuy jagleel ñu ngi ciy sant yalla bu baaxa baax espérant que yeneen match inshallah incha allah dinañ ko gagner sinon victoire mom la yàbbal lañ bëggone mais yalla li la jógal bon mënuñ ci dara ñu ngi sant yalla bu baaxa baax. jërëjëf waa régie ba ba tey dañuy desandi euh, zone 9 bu Diamniadio yéen xam ngeen ni match bu am solo bi nga xam ne doon nañ ko waxtaanee ci grand place yi ak fépp mu nekkoon diggante jamono safa ak waa jàppoo taxaw euh, si noonu rek la ñuy def ànd ak waa régie euh, daal di seetaan ni li nga xam ne moo fa xewoon. parce que poule de cinq la booy xool poule de cinq yi boo xool euh, ñaar ñooy génn trois mooy toog kon xam nga ne loolu dafa metti tey bu fekkee da jël defet rek euh, kon tey da leer ni yaa ci saako yi kon ça veut dire que tey jii nii victoire kese kese moo arrangé jàppoo te yàlla na ko yàlla may ah. ndax équipe bu mag la ñuy daje mais yaakaar naa ne ndam li dañ koy yóbbaale incha allahu rabbi ndax bu ñu xoolee ni ñu commencé noonu la ñuy tamit dañuy am bii. waaw match bi nag dafa nekk match boo xam ne match capital la match bu euh, ma sama deuxième match moo nekk ma tasante may war a tasante ak jamono saafa moom mu am na muy ñëwee mu nekk équipe bu bees mais ñu nag équipe bu mag nañ am nañ expérience. waaw gis nga gis nga ni ma ni ma ni ma leen waajal ñoom dañuy sañse bu baax esprit bu baax tranquillité ñëw dóor jamono ñëw astafurlah ñëw dóor euh, jàppoo taxaw dem seen yoon waaw incha allah. pratiquement manquants yi donc la majeure partie donc équipe caractère assise parce que nous ñu caractère par rapport au premier match donc donc match répondant voilà répondant mais jusqu'à présent euh, facteur yi nga permettre jeu du fluide dafa manqué au niveau de la zone parce que les terrains ce ne sont pas des terrains yoo xam c'est praticable da ngay ñu passe joueur ballon buy ñëw ci qui bu laalee suuf si def effet circonstances de jouer. da ciy que moo euh, Ben un problème d'adaptation un problème de maîtrise de ballon Mais ciy jouer mais boo match tey bi un impact physique une na répondant nous euh, avons amagul confiance pour marquer des buts vous seet de démb jouer euh, travail devant les buts mais but bi rek mo dess ñu ngi jouer ñu ngi jouer ñu ngi essayer parce que tam euh, équipe bu ñuy door construire la mais dafa melni comme équipe yu dañ ko ragal légui parce que boy set équipe bi dañuy tok sen camp gis nga ni ñuy daano chaque instant ñu ngi daanu chaque instant ñu ngi daanu bon euh té temps bi gis nga dafa mat juste arbitre bi tas que c'est parce que en même temps additionnel bi téwuko temps bi ñuy jouer dafa dess mais dañuy sante yalla parce que tam mënoon nañ ñak c'est équipe bi si défaite la jógee

Jesus back in the place upon that nine. Man, na fay cam na ndaanaan yàq ya, der su bëgg ngoon du tax ma bàyyi man nekkal di wax sonal su bëgg du tax ma tay maan hip love money ñu money moo ñu téye maan wax dëgg lu ñu tal du joobu tóoye maan toog shit ama jot demal joobi man. jéegoo yu ma def ci town bi nii ko jege maan def rap du ndëcci rap moo ko dàq Tek sound du ndëcci sound ak a cukk maan teg flow du ndëcci show ak a man. maan hip hop du fook lu toyo du kawe man. yàgg naa ko tóoj aj ko ba mu

bari seetaan jékki-jékki reetaan ku nekk ci yoonu yàlla doo tiit jobu seytaan il faut ñu nangu booy taal bu yàlla taal taal bu yàlla taal kul ci bu dem kal hip hop is our D never blow hip hop keys our D never low Hip hop speed, our D never slow. Hip hop stage, our D super show. Lead for the mohol ngeni planet boy. Rap sound noble, the dog ngeni yak boy. Lead u chahan sama life like you tech boy. 84 but tay ni jaadu na ma alu. Mohamed Sanu, euh, capitaine de l'AIC Sebi Ponti, zone 9 de Djamni. Ponty il Ponty de faire defee sama cadet senior après par la suite la dem 2017 2017 je crois c'est la dem non 2019 c'est la dem Manco. Euh, Manco, Ponty après Ponty je suis en Ligue Pro je suis en Ligue Pro c'est mon première année je joue joué Soa deuxième division après je joue à Soa dem AS Dara. première division après bi ma jógee AS Daara dellu si Daaru Salaam Sébikotane yéegal ko en national 1 bi ma jógee foofu bon dellu si waat euh, Diamniadio ndaje def Diamniadio un an après delluwaat Ligue 1 ñaari tali par la suite club yooyu laa jaar quoi Sénégal. loolu peut-être euh, problème encadrement ci lay bokk. parce que xoo boo xoolee aussi joueurs yi euh, fi ñuy rawante aussi ci encadrement bi lay doon quoi encadrement bi ak aussi chance bi tamit ci lay bok euh bo nekkee professionnel bon da ngay tok gaay dinañ la dégg buñ la déggé ñenn ñi dinañ def ay contact bon amon na nak euh coach bi mo formé euh Émile Clément Diouf mom moo formé mais après nekkoon na ci samay samay dossier pour. euh, yóbbu ma à l'extérieur mais euh, malheureusement dafa muju feebar après mu décédé quoi mom moo formé waaw moom defe naa bon mom ñep xam nañ ko Sénégal. bon c'était en 2011 bi may jël finale départementale bi euh, à Tëngéej bon dund na ci euh but bo ne moma gëna impressionné muy demi-finale contre. euh, équipe qui la Calais, c'était en 87e minute pour libérer cette équipe ko en finale départementale. bon secret bi bon le secret parce que football mooy li la rek bon boo xoolee euh, fi Sénégal championnat boo xoolee si euh, nawetaan yi facilité faciliter pour pour pour positionnement pour me marquer marquer but. il faut nga travailler aussi entraînement mooy secret bi entraînement seul man damay entraînement. actuellement sama objectif moy li des ci compétition bi euh, deux compétitions yi sama objectif moy jël ko pour mën a kiiwaat équipe bi tuuti quoi parce que. dem nañ départemental amoon nañ yaakaar mais yàlla moom mooy maye ñu toog quart de finale bi mais actuellement li des ci compétition bi muy journal ak euh, euh, trophée coupe du maire bi bon ñu ngi ñaan daal yàlla may ñu ñu jël ñaari trophée yi quoi comme ça après mu mën a décrocher pour mën a mën quoi actuellement nii nawetaan c'est possible c'est possible parce que man man mom laa xam bit rek laa xam man terrain man dugal bit rek laa xam joué maamulul joué na wala joué wul man moom loolu kii wu toujours daal man ni may dugalee bit bi laay wër voilà 90e minute bon du ma découragé waaw maa ngi si maa si parcours bi waat je pense que ni ñun ñëpp ñu dugalagum amagul amul ñëpp benn benn la ñu am waaw. bëgg naa ko pour euh, mën a entraîneur suba pour mën encadrer les jeunes jeunes talents nous ñu ngi fi am bon mu ngi sama projet pour mener a course. coach. di leen encourager ci sport euh, jeunes talents yi nga xamante Nous ñu ngi fi euh, ñu décourager ñu équipe championnat pour pour football parce que le football aussi euh, du da ngay deux mois trois mois football saison là. saison la il faut nga entraîner nga compétir nga mën a ñëw mën a am talent yoo xamante ne dinañ la gis à euh, recruteurs yi nañ la mën a gis pour euh, jàppale la aussi pour nga voyager parce que football dafa nekk loo xamante ne actuellement nii ñëpp moom la ñuy suivre ci monde bi ñëpp ci koo wax danaan la dama bëgg doon joueur di leen encourager nag ñu bañ a euh, décourager surtout. Mes téléspectateurs du euh, TV3 Channel Dylan Djadjev Barabar, bu mon son premier numéro euh, TV3 Sport euh, à la présentation Babacar Diouf may remercier bu baax toute l'équipe technique bi nga xam ne doon nañu Sibir gunge si émission bi ci cadre bi Issa am réalisation bi Gunman, chargé de production Geki Diouf coordination bi ñu am ci kam rek moy euh, Thiaba euh, di rendez-vous euh, très prochainement